ngeen jot suñu vidéo nag foo leen di a jot moo leen a xam sant bu baax nag ci teew gi teew fii teewal fii président de la république te ni ko sëñ Bass waxee ñu am délégation bu ñu waroon àndal wante mu woote d'urgence réunion. njur ñuy waxtaane mbir mi nga xam ne moo jëm ci jàngoro ji nga xam ne dal na ci kaw réew mi dal ci kaw àdduna si loolu moo tax ma dikk teewal ko fi am ci nag mbégte lool ndax yu baree bari ba ci jiitu moo di ki ñu defal bis bi mu Cheikh moom leen baara daana ko fi wax at yu ne ba ca topp ñu tudd ko ki nga xam ne man moom la jàppe sama sëriñ mu di maam Thierno Birahim loolu dama koy wax toujours ndax dama gëm ne Serigne Touba da koo jël defar ko ngir wane ne ni mu bëgg am murid mel ni nit mën na leen mel man moo tax ma jël Thierno def ko ma del di ba ca topp itam nag mooy kilifa yooyu ma tudd yëpp te ñoom ñëpp ma xam seen diggante ak président kon su ma leen fekkee maa ngi leen di jottali nuyoo président ay ziaram muy feddali kóllëre gi nga xam ne seq na ko ak yéen ndax ñu ci bari xam naa coono boo xam ne ñu ngi koy daj ci moom ak cofeel gu am ci moom ak kóllëre goo xamante ne bii aussi dox seen diggante kon nuyoo boobu maa ngi leen koy jottali waaye rawatina nag di am mbégte teew fi ci ndax diggante sëriñ bas ak le président Macky Sall dafa àndoon ak moom ba nga xamante ne bii booba yi yëpp amagut directeur la woon nekk ministre nekk premier ministre ak ndogal dal ko nit ñu bari bàyyi ko sëñ Bass jàpp ko nekkoon naa la yóbbu palais ànd ak moom ba dugg palais de la république loolu moo tax sëñ Bass sa bis bu ñëwee président dana xam ne kat sa bis ñëw na ndax jàpp koo ko jàpp ci wane goo xam ne wane nga ko ci muy neex muy metti ak saa su nekk te mu nit koo xam ne nit ko am colère la moo tax sa diggante ak moom du ko yemale ak dara du ko fàtte mukk mu ngi feddali colère gi nga xamante ne bii seq ngeen mu dala xamal ne sa mag la wante itam ab sëriñam nga te la ngeen seqoon démb ba nëga ni te lépp da rafet mu ngi koy sàmm yaa ngi koy sàmm mi ngi ñaan yàlla mu sàmm leen kóllëre googu kon loolu moo tax mu dema kat demal ki sam xarit di sëriñ Bas boo demee nga jottali ma ko kàddu yooyu yi ne itam boo demee ci kilifa ya nanga ma fa sàkkul ñaan ñaan gi nag ci réew mi la jëm ndax kenn ku ne xam na ne am na balaa boo xam ne dal na ci kaw àdduna si duggandi na ci réew mi waaye fii ñu taxaw tey njabootu Serigne Touba rek nekk fi rawatina ki nga xam ne mooy Cheikh moom Lamine nga xam ne moo dikk indaale ngërëm dikk indaale ak wilaaya gu mat sëkk ak ki nga xam ne moo di loxol ndajooru sëriñ bi moom gëm na ne bu ngeen ñaanee seen ñaan yooyu suñu borom du ko dellu mukk kon mi ngi sakku ngeen ñaanal réew mi ba jàngoro ji fi dugg sunu borom wis ci ndox mu sedd muy dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ba jeex takk te loolu rafet na ci njort ndax kenn ku ne dégg na li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ko ca Porokhane ja Cheikh Mountakha dafa wax ne jàngoro ji kat ab jaam la ñu dib jaam sunu borom moo ko sakk sunu borom moo nu sakk jooju wax foog naa wax ju leer naññi la kon ñaani Cheikh Mouhamadou Mountakha yooyu foog naa ne sunu borom du ko dellu mukk yëmut ca loola mu man réew mi aw yoon yëkkati xaalis bu bari joxe ko nekkat lii maa ko ci def ci ñu koy xeexe jàngoro ji loolu président mi ngi ko ci sant ndax réew mépp la ko defal ndax xam na ne moom moo jaboote mboolem ku nga xam ne yaa ngi yewoo ci réew mi loolu nag yoon woo mu wane day tegtale ne ñun ñëpp dañoo war a maase ànd mobiliser wu nekk benn duñu am kenn ku ñu jàmmaar lool ku jàngoro ji ba keroog ñu koy daan te xam ne segam ñaan yooyu jiitu na sunu borom danañu dimbali ba lu ñu bëgg nu am ko mu génn fi te jeex takk ci àdduna sépp kon sëriñ bi loolu mooy kàddu yi di dellu rek di ñaax nit ñi ci ñu xam ne jàngooro ji nattu la wax nañ ko léegi foog naa si max ma doon ma ko doon wax boo xam ne sunu boroom wàcc na ko fi waaye nag nañu fagaru itam loolu mooy tàmbali xeex bi ginnaaw bu nu ñaanee ba noppi nanu yokku cet gi nga xam ne lislaam moo nu ko njëkk a digal ci ni ñu war a raxasoo lislaam da ko bañ ba jàpp foog naa loolu amul jën dina joo xam ne dañu koo fekk waxtu wu nekk dangaa war di set kon loolu nañu ko fonk fonk cet gi di moytu suñu ko defee rek kenn ku nekk gëm na kat jàngoro ji yow yaa ko war a xeex ci fi nga toll kenn ku nekk itam bépp jaaxale boo am ci sa yaram nga toog fa nga toog woo ña nga war a woo ñu ndikk jël la ndax jàngoro ji xañ na wàlle bi metti na waaye nekkul jàngoro joo xam ne aussi dafay lore lu bari kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di dal di sant sëriñ Bass Xaadim Awa Ba tey du ma sori ci sama diggante ak yow ndax kàddu kilifa laa fi teewee waaye loolu Sénégal gépp xam nañ ko waxtu wu nekk man ak yow lépp loo nekk ñoo ciy nekk lépp lu ma nekk ñoo ciy nekk kon couleur gu nga si maa fedd li feddali ñaanal sa maam nii nga koy defal di ko wane ci mboolem àdduna si nii nga dajalee njabootam gi nii ngay dajalee bokk yi sa maam nangu la ko